sant yàlla bu baax yàlla mi nga xamante bii ni ci coobareem moo ñu mayaat ren ñu fekke ko ñëw wuy si kilifa yi nga xam ne ñoom lañu yàlla booleel ñu nekk ci dëkk bi ci ndigalu seen kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ko ci jiitu di le président de la république di premier ministre am di ministre de l'intérieur am ngir ñu ñëw ànd ak ñoom ñu saytu xew-xew bii nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi xam nga njabootu Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène moom moomu di góor googu yàlla wàcce woon ko ci cees mu toog fi diir bi mu fi toog di fi taxawal bés bi ba léegi ay sëtaatam di ko taxawal képp koo xam ne taxaw nga ngir jàppale ñi ci jàppale ci sëriñ bi di Mouhamadul Mounir njaboot gi yépp amee nañu la sant amee nañ la gërëm cant ak ngërëm loolu moom la ñuy yëkkati di cantu sëriñ bi ngërëmu sëriñ bi ak ñaanam ci autorité yi nga xam ne ñoom lañu yàlla booleel ci dëkk bi e mu am innovation bees yoo xam ne mosu ci am démb ci suba bi ñuy waxtaan ak sëriñ bi ci néegam man ak moom ak suñu beneen mag alxaaji xalifa gay mu demal lii de mosul am ci gàmmu gi ñaari woote yoo xam ne sous-préfet bi woote ko ci préfet bi woote ko ci gouverneur bi woo leen ngeen war ko wuyu ji suba loolu mosul am ci gàmmu gi ma ne quoi ah, loolu yëpp sëriñ bi ak yokkute la dañoo war a sant yàlla bu baax mais yokkute googu nag dafay am ci ñoo xam ne ñoo koy xalaat mooy ñii nga xam ne moo yéen ñi nga xam ne yéen lañu yàlla booleel ci dëkk bi kon suñu sant suñu ngërëm suñu ñaan ci yéen lay tàmbalee yal na yàlla dëgëral leen li ñu leen di assuré li mooy kër googu day kër goo xam ne képp ku leen ji bëgg nañ laa fay suñu fay nag ñun ay taalibe lañ ëpp suñu pay ñaan la ku ñu jëflanteel dinañ la ñaanal lu baax rawatina boo ñu defalee lu baax defal ngeen ñi lu baax yal na yàlla fay leen lu ëpp seeni njort ci bark yonent bii ñuy waajal guddeem mën nañ cee bañ a guddal ci wax ji ndax suñu doom ji doon wax ñoo ko waxloo sëriñ bi daal nee na mi ngi sant bu baax monsieur le jotal ko gouverneur si di leen seedeel ne monsieur le préfet ak sous préfet bii nga xam ne ñoo tàmbali woon liggéey bi ñun la ñu jortoon am na man bi ñu jullee jumaa ba may ñëw jortu naa ci sama xol ma ne ak ah, suñu jataay bi day mën na bañ yàgg bu ñuy seet daaw ajjuma leen def suñu CRD fii def ko fi ci 16 heures lañ tàmbali mais bi ñuy génn fii julli nañ timis ba geewee di bëgg a jot ren nag bi ñuy ñëwit nee naa xam naa ne bu dee fukki poñ juróom-ñaar yëpp lijjanti nañ ko ba pare sëriñ bi itam keroog ba ñu jógee ci CLD bi njaboot gi ku ñëw ci moom ne ko mais jataay bii ñu def tey de ëppoon naa ñàkk def baax na lool sëriñ bi loolu yëpp nag yéen ñi ko xam di ko organiser ñun ay taalibe lañ am na loo xam ne xamuñ ko ci mais teg ngeen ñu ci yoon gis nañ ne yoon woowu itam yombal na liggéey bi kon yal na yàlla yombal seen lépp nit itam ni nga ko waxe sànq nit mébétam lay am bëgg-bëggam ak ñaanam yàlla moom mooy nangu ñaan yi mooy mottali loo xam ne lu ko soob la kon yal nañ yàlla boole mottalil ñun ñëpp lu ñu fii mébét yëpp yàlla na ko yàlla mottalil ngeen seede ne njabootu Njëgëneen seeni i taalibe seen i am di jàmm seeni soppe ñoom ñëpp kontaan nañ ci nii ngeen ñu defale ren nii ngeen taxawoo ànd ak ñun ren yal nañ ko teewee at yu bëri yàlla may ñu fekk jàmm ak gàmm gi ak jàmm lépp loo xam ne ñi ngi ko ciy mébét yàlla mottalil ñu ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Seydina Cheikh radiallahu anhu e du ñu dañ itam di beral ngërëm ak cant ci ñaari nit ñoo xam ne léegi ñi nga bëgg a nekk ay doyen ci dëkk bi ay kilifa muy Serigne Cheikh Fall bu RTS bi daaw bi ñu waxtaanee fii ba pare jox nañ ko kàddu gi mu wax ci turu presse bi dafay am ay mag ci dëkk bi Thiès dañu leen a war di leen fonk di leen tëral bu baax ndax ñoom fu ñu taxaw rek Thiès a fa taxaw ku mel ni benn cheikh bi fi nekkoon yal yàlla gën a dëgëral ko Cheikh fal topp ci ay tànkam ba mbooleem loo xam ne keroog man dama toog gis ci télévision bi mu def benn reportage ci këru diine sama doom jii ba ma ñëwee dama ne ko neel Cheikh Fall Serigne Ousseynou nee na maa ngi lay félicité bu baax. man maa ko seetaan naa ko man. boroom xalaat la te nit ku baax la yàlla na ko yàlla jàppale. Eh, Serigne Diaw bii nga xam ne moom moo yor service du commerce moom itam mi ngi fi bëgg a def ab diir mook Daouda Gueye bu Sénélec man mii di wax ak yéen ci Zakaria jaw laay mag di ànd ak mag ñi di ñëw fii ci ci ci gouvernance bi. te gouverneur Zakaria Diaw lay ànd ak mag ñi di ñëw fii ci gouvernance bi fii di ñëw CRD su ma ñëwee damay toog na la rek sëñ Muniiru moo doon jiite ak alxaaji Babacar Ndiaye mbir mi di dox ba jaar ci suñu mag bu ñuy wax alxaaji Baro Njegéen di dox ba jaar suñu mag bu ñuy wax Duudu Saxiir Njegéen Mamadou Njegéen mi ngi dëkkoon fële ca euh, Bour 3 bi mu nelawee la mag ñi dajaloo woo ma ne ma sëriñ Ousseynou del jiite gàmmu gii yàlla may ma chance itam ma am yoo xam ne ñii ñoo ma gën a farlu fopp ci mbir mi ñoo ma ci gën a bari xam-xam ñoo ma gën a mën a jàpp ci liggéey bi ndax njiit bu nekk da ngay am chance su équipe balay balay balay balay encadré suñu chance mooy équipe bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm suñu secrétariat bii bu gàmm gi desee ñetti weer dootuñu toog te lu ñuy wax dinañ ko bind fu ñu réunion dinañ bind lépp loo xam ne dinañ ko war a topp dinañ ko topp ñu ngi lay seedeel ni ñu ngi ànd ak équipe boo xam ne ñii ay professionnel lañ boo gisee sànq ba léegi may insister ci ñu wax man xam naa ne ñii fu leen yóbbu mën nañoo wax ndax li ñuy wax dañ koy xam ba mu fiir firnde ji gis ngeen sëriñ Makki boobu Makki Njëgeen rakk la ci ma ñu ngi ko tuddee alxaaji Makki Taal ñun maam Cheikh Umarul Fuutiyu Taal moo may wérd suñu maam alxaaji Ahmad maam Medoune Njëgeen ñun ci maam Cheikh Umarul Fuutiyu lañ jokku directement ku ñuy may wird ci ijaaza boobu lañ lay may wird suñu rakk boobu Thierno Macky Tall lañ ko tuddee bu ñëwaan ci suñu kër gane si baayam lay àndal makki bi alxaaji usmaan Jigéen moo ko jox alxaaji Ousmane Jigéen rakk sama baay la alxaaji Mouhamad Jigéen ñun ñii noonu la bokkee mais kenn ku ci wax kenn ku ci toogoon fii di nga liggéey bi ci anam yi nga xam ne moom moom gën loolu itam ñu ngi la koy seedeel képp koo xam ne ñëw na ci yow wax ci turu comité d'organisation bi ci turu sëriñ bi ci suñu tur xamal ni kii liggéeykat la nit ku jub la te li mu nekk nii xam na ko bu baax a baax ñu ngi lay ñaanal di ñaanal monsieur le gouverneur doyloo nañ la sëkk mate nga li nga xamante bii ni moom la la doon doye fi ñuy tëje nag mooy sëriñ Ousseynou Diouf mii ñu ngi leen koy présenté bu baax baayam suñu turandoo baay la moom itam su gàmmu gi xësee ba dëgmal dootul am jàmm fekk gàmmuwuñ ba ci ëllëg si pap daw kii rakk la ci ma moom itam soo ñëwee kër maam nag nagu presque un million lay jënd indil ko sëriñ bi at mu jot ñooñu tam ci comité bi lañ bokk te ñun ñu am taxawaay lañ ci liggéey bi ñu ngi leen di présenté bu baax ñëpp gën leen xam bu baax ñu ngi ñaan ci yàlla yal yàlla may ñu teewe ko déwén yal nañu yàlla boole jàppale yàlla mottali liggéey bi ci yi nga xam ne moo sol bone bi suñu mag la moom alxaaji ahmad baro la tudd moom waaw sëriñ bi moom fu may dem sido waaw ñu ngi génn ci CRD bi jóge ci CDD ak ci CLD am yaakaar ni yaakaar yi ñu ci am yëpp ak bëgg-bëgg bi ñu ci am yëpp dinañ ci am li ñu ci bëgg parce que chef de service yi ñi fi teewoon ñëpp kenn ku ci nekk dalal na suñu xel yaakaar bi ñu am ci yoom bëgg-bëgg bi ñu am ci yoon wax leen ko kenn ku ci nekk won nañu ni dinañ ci dem seen kemtalaay kàttan te yaakaar nañu li ñu bëgg ñun dinañ ko am bu ko defee ñun donc dañuy gis que ni ah gàmmu gi day ñun suñu xel mën na ci dal fii ñu toll nii parce que ñi ñu yaakaaroon pour ñu jàppale ñu ci kenn ku ci nekk pare nga pour jàppale ñu donc du ñu man lu dul sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal nit ñi ñu ñëw ci jàmm sécurité bi day problème bu sensible moo tax préfet ak gouverneur bugguñu ci sori mais dafay problème boo xamante ni ñun aussi à notre niveau dañ ciy bàyyi xel parce que fu amul sécurité defe naa ni yenn yu bëri du fa mën a am ci biir loolu nag dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp presse bi nag ñoom chaque année dama ko fàtte bi may wax en français mais chaque année dañ leen di signaler une mention spéciale parce que dafa mel ni en fait ñoom liñ dafa am luñ ñu beral te ñun gisuñu en réalité lan la ñu def ba ñoom ñu war ñu am taxawaay bu rafet bi ñuy taxaw ci suñuy mbir mais duñu mën lu dul comme ñun ñaan rek la ñu am fu ñu toll rek di leen ñaanal yàlla kenn ku ci nekk foo bëgg a egg rek yàlla na la fa yàlla eggale ñu fekke gàmmu gi ci jàmm dund ko ci jàmm yàlla nangul ñu liñ ciy def yépp comme jaamu yàlla te boole ñu ko te defal ñu jàmm ci réew mi ñuy sant bu baax la président de la république son premier ministre le ministre de l'intérieur le gouverneur le sous le préfet et le sous-préfet ci taxawaay bi nga xamante ni taxaw nañ ko ci gàmm gi ci organisation gàmm gi ba nga xamante ni comité bi fii ñu toll nii bu ñu fi jógee bu ñu demee dinañ mën a tëdd nelaw seen xel dal tey am ñaan tey ñaan yàlla rek yàlla mottali yépp parce que yàlla mooy mottali yàlla nañ ko fekkee ak waaw Kër Maam ba euh, soxla yi mu am bari na parce que fànn boo jël boo jëlee électricité bi dañu am installation électrique boo xam ni booba ñun juddooguñu dafa yàgg ñu bëgg a changer support yépp parce que changé woon nañu une bonne partie euh, daaw muy deuxième phase bi lañ bëgg a def ren déjà xamal nañ ni dina commencer bala moo yàgg te bu seen pexe jubee sax dina pare avant que gàmmu gi bu ñu jëlee ndox mi lu ñu soxla ci ndox muy ci site yi muy ci kër gi muy ci koñ ba lu ñu fa soxla ci ndox pare nañu pour indil ñu ko bu ñu jëlee sur le plan médical journée dañ daan organiser ay journée yoo dañuy faj nit ñi ak doomu aadama ya fay ñëw couverture médical bi aussi ñu assurer ko jouru gàmmu gi veille bi ak le lendemain mais li ñu soxla woon ci médicament te bëgg mu dolleeku ñu xamal ñu ni dinañ ci dolli seen kemtalaay kàttan ambulance yi ñu doon wax bëgg nañ ci peut-être ñaar xëy na ñu xamal ñu ni effectivement ñaar yi dinañ ko am mais bu ñu demee ci daanaka fànn boo jël muy élevage muy beneen commerce muy service boo jël rek kenn ku ci nekk wax na loo xamante ni vraiment dal na xel pour que ñu war a mën a dem ci gàmm goo xamante ni duñ ni du am jafe-jafe mais jafe-jafe yi du yàq dara ci déroulement gàmmu bi donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan yàlla ñu fekke ko déwén ak jàmm